mbokki internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel yéen ñi nga xamante ne yéen ñuy faral di suivre sur Dakaractu tey nag ma ñëw Grand Yoff Arafat li tax mooy mbëri dafa am souvent lu ñu leen doon bàkkee mooy les lutteurs ne sont pas sociaux tey ma seet si xale mbër boo xamante ne ki il a fait ses fii ci sama kanam fii biir Grand Yoff Abdoulaye Wade ñu gën ko xamee ci mobile 2 xanaa rek ñu bàyyi leen mu nuyoo ak yéen ñu soog a dugg dans la but du sujet mobile ñoo ngi lay nuyu. waa salaamaaleykum salaamaaleykum maa ngi lay fay Jibi Touré taalibe Serigne Mbacke Madina bi. ah tourné naa ku nekk nag. waaye bu ma neexee ne maa ngi doog a tourné émission. ndax ki may tourné nii moom moom moom moo tax ñu naan mobile. wallaay yaakaar naa turu mobile ci ñi ko génnee ci la bokk. Mhm. turu mobile ci ñi ko njëkk wax ci la bokk. Mhm. ndax bi may nekk xale bu ndaw yaakaar naa di bëre bu ma musaa na ñëw làmb ñu daan ma ñii naan nii ak nii nga ne ma jógal da ngaa ñàkk jom. barki borom Tuubaa ñi nga daan reporté ndool bu ñu waxee nga leen kii day nekk mbër danga koy def nii xale la saan ñuy dem di bëre di ko bëre ay gaal gi ay yaakaar man dama daan bëre làmb joo reporté wul sax nga solu ñëw toog wallaay ndeysaan bu tëyéer ne dañuy tëgg làmb nga leen mobile day bëre wallaay ndeysaan kon lépp fii la xewee lépp yow fekkee nga lépp mhm. di sant yàlla bu baax nag di julli ci yonent bi xam nga di sant suñu waa di nuyu waa Dakar ak ti yëpp yëpp yëpp yëpp vraiment di nuyu ñëpp

maanaam mbër yi du ñu yëngu social mën nga dëgg lool. ah waa social moom amul mbër amul lii amul laa ka xëy na am na ñu ko suñu borom mooñaale am na ñu ko suñu borom mooñaalewul am nañu alal yóbbu fenn fi mais am na ñoo xamante ne jàpp nañ ne lu ñu war a lu war a ñëw seen loxo la it bu waree jàll rek day jàll. loolu moom. Euh, mobile euh, dagg ci alalam. presque une quarantaine de million maanaam ci kër goo xam ne tey boo ko doon estimé. mën nga ni mën na jar ba soixante millions. wala soixante cinq millions. Euh, ne waa kër Ablaye mbay bu ñu ma joxee quatorze millions de francs fa ma jox leen kër gi ma bi loolu ko dugg noonu ba mu ba mu def geste boobu waaw man dama toog rek benn guddi may seetaan site internet ma gis ñu wane yaay Ablaye Mbaye xaw moon ne sax yaayam la parce que photo yi laa gis rek ma dugg suivre après ma gis ko mu expliqué ba rongoñam tuuru ma toogaat seetaan sam papa Iran tamit mu expliqué ba xataraayu ne yónni naa ba sax na dem wuti terrain bu wutee terrain Kër Massar dinaa def tout ba ñu tabax ko ma def samay démarche di wut numéro Iran ba am ko ma woo ko téléphone expliquer ko ne ko man maa ngi kër kër gi ma am nag bu ma amoon bu ma sunu borom dénkoon teraanga yow doo ma xam dinaa def ni ma wëree ba am sa numéro dinaa ko wëree ba amee noonu numéro yaay Ablaye Mbaye dinaa ko fekk ba fu mu toog yëkkati kër gi jox ko mais nag comme dañoo nekk ay ndaw di doog dugg suñu buntu àdduna tey nii may waxeeg ak yow terrain sax dencuma ko. kër googu ma lay wax ni mom la yor mais sama yene man moy man mi duma ci tëdd yaay Ablaye mbay mi ñu nar genné teud ci mhm. mu ne ma lan nga bëgg mané ko nu ngeen def rek nonu la bi may jël këyit di ko jox Iran ndaw xawma ma Iran bu dul télé ni ni ni ni te man ma xey wëri ko ba gis ko sen TV yëkëti kayitu kër gi jox ko dama nga vérifier fi la doy ci Sénégal bo paré woo ma mu paré woo ma ma taal sama auto dem jëli ko jiital ko ba ci biir kër gi duggal ko ne ko vérifier fop bëgg ngeen mun a waaw ko dem leen ngeen xol lu ngeen am baax waaw lo boo gisee tamit ñu def ko mooy am na fu ñu jaar yow xam nga lépp métti woon na ñun judduwuñ mu demee nii judduwuñ fekk lépp demee noonu mais nag boo amee foo jaar xam luy métti xam luy nyak, am na loo xamante ne nii suñu borom dina la ko jéem a dimbale waale ndax ñun dañoo judd fekk lii ngay gis tey doon baraak doon baraak suñu kanam ñu dund ko mu métti mm, mm, mm. bu musaana taw billaahi suñuy morom yëpp dañ daan sol kilot daw si ñëw ndax kër gi moom jarul laaj day daanu moom moom ngelaw li sax bu amee dool day daanu bu tawee ba arrêté ñu gasaat paxi sampaat bant yi daajaat baraag bi baasaat ñu duggaat tëdd noonu lañ ko daan dundee noonu lañ ko daan dundee di ci góorgóorlu yàggoon am gëm-gëmu ne dinañ ko fi jëlee tey sant yàlla li ñu nekk nekk ndaw li ñu làmb fayagul dara fayagul dara nu mu mën a mel ñun ñoo ko def sant nañ yàlla ba tey doonatul baraag kon tey bu ñu gisee suñu moroomu yaay ju toll foofu noonu te xamuñu ëllëg fu ñuy mujj ak lu mën a xew man mii sama yaay mun nañ koo xëy teg ci télé bi di ko ketal ñu ko yàlla nag mm. ak lu mën a xew mun nañoo xëy man mii sama yaay ñu toll foofu noonu ak lu mën a xew man mii jëmm ji toog mun nañoo xëy di ma defal loolu mm. kon nag bu ñu koy defal nit te lañ ko koy defal am nga ko loolu mooy jafe-jafeem ma jàpp ne moo ko amee it suñu borom moom ko joxoon mm-hmm. xëy na bu ma ko defee ci ay mbiram moom it mun na maa delloo loolu ko te séentuwuñ ci lenn bi ñu koy def. nga mbir mi demee na boor léegi saye. saye féete na boor. Mm, démb laa leen yóbbul ay caabi ak seen i kayit ak lépp jox naa leen ko démb. Mm. tey mobile di ndaw yor soxna yor fami mm. eh, kër googu mu yittee woo ko woon trop est-ce que du risque aussi ci moom après mobile nan lay nan lay dundee après moom ak famille waaw nekk ndaw yor soxna teel la yor doom waaye tey boo gisee mu demee noonu. defeewu ma ko luñ ma xalaat loo wala lu mel lii wala lu mel ne damaa jàpp ne amaana ak lu mën a xew même bu dee risque laa def ci période bi ma koy def. yaay Ablaye laay mbay ko gënoon nekk ci à l'aise parce que maa ngi suñu kër. fayuma location daane luñ suñu kër. Uh-huh. mais moom ci mbedd mi la jëm si woon. te lee tëdduma fa maa ngi Grand te bu ma toogee xool ko ba moom mu tëdd ci mbedd mi buñ ko doon def sama yaay war naa koo mun a xool ba mu tëdd ci mbedd mi. du leneen ma jël. bi nga yëkkatee idée yaay dara amul sa benn mbokk ba la dànkaafu ne li nga def ëpp na. waaw munul ñàkk mais man bi ma def xam man moom yàlla def na comme maire bi laa gën a miinanteel. Mm. ma ñëwee seetaan affaire bi damaa ñëw ba ci moom tàppe ko woon ko ko comme moom ay téléphones yi miinu ko. ma xam ne seetaan pour comprendre bi day xaw a ma expliquer ko lépp nu mu demee mu ne ma ah léegi loo gi ma ne ko dama la leen jox sama kër gi mu ne ma ah, loolu nga gis ma ne ko waaw bu dama yow yaa ngi noonu rek ma ne ko waaw loolu daal laa gis moo gën tamit ñuy génne maire bi te comme yàlla dimbale may na ko doomam yi mu am ay silmaxa lañ ak réew mi fi mu toll nii dara wóoru ci mm. nañ ko jox kër gi mu fu mu dugg yàlla mu rafetlu ko ñaanal ñu si bu baax a baax a baax mo bi jëf ci yàlla la ci jiital wóolu ci yàlla ba tax mu def ko kese mm. jiitaluñ si leen ndax jibi nag bu lépp weesoo ñun ay murit lañ mm-hmm. ñun lu ñuy yoot te jotuñu si daa gënul ci ñun ku tedd ki duñu ko fànqal mais ñun lu gën si ñun duñu ko wëri dañuy xëy di dajeek moom ñun Serigne Touba képp lañu gëm li ñu def nii suñu borom dong lañ si jiital teguñu ko ci leneen séentuwuñ si ku yor sa juróom woo ñu téléphone séentuñu si ku yor sa lenn yaay Ablaye Mbaye bi nga ko seeyaane daf mel dafa xaw am similitude ak GCI waaw am nañ tere nag dañoo nuroo trop wax dëgg yàlla dañu nuroo et puis passé yi dafa bokk quoi démb parce que man li ngay wax lu ci bari fekk na ma fii mm. waaw bu may seetaan passé yi day nuroog ne benn famille bi la. jaar-jaar yi day mel ne benn famille bi la. parce que tamit li nekk nekk nekk nekk xale xam nañu suñu yaay daj na fi lu nekk. billaahi wallaahi wa taala daj na fi lu ne. coono bu nekk daj na ko fi. parce que bu dëkkee ci koñ bii nii nii nii nii juru fi ku ko ëpp doomam nit ku ko ëpp doole yeewoowu fi. doomam nit ku ko ëpp tur yeewoowu fi. pattul làggiwul mais moom rek la fi këram mel benn melokaan bi te da koy dund ak ay doomam ak fierté. du leen sax won kanamu ne léeg-léeg lii. sama yaay naw len bu mu xey seti bo ñëwee bu ñëwee si saal lañ koy entraîné mais mom kenn mënu ko set ci ndax bo ñëwee amul fu mu la tek mu nyun won da ko doon dund bu musaan di taw ñun suñu famille rek nga daan gis ñu taxaw ni ak suñu xarit mais kër yëpp da ngay gis ñu tedd duñ ne mi ngi taw mu metti nga jaar fofu non xam lepp xam luy choono xam luy metti xam luy choono xam luy metti am jaar-jaar kon nak day laaj yenn yi nii nga koy mën mobile tay mag na Eh, yàlla mayoon leen papa ju jàmbaar rek eh, Baye Ndongo eh, tey mobile gis nga ni def kër gi man bi ma koy xam boobu mu ngi marché en même temps nekkaale woon ci mairie bi tey def na benn vide ci yéen tey ndax bu ngeen seen fekk par li mu bëggoon mooy seen réussite. Mm-hmm. waaw bu ñu amoon lu ñu gënal mu fekk ko fi ndax lu nekk dañ na ko ndax ñun man sam papa ci li ma jot a fekkee ci sama ndaw amul alal ju mu téewul ci àdduna mm-hmm. mais ba ni muy gaañoo këram baraag la ndax doomu yi lu ne téye na ko lu ne lu ne lu ne ba nii sama yaay loolu lay tooñee sama mag yi boo waxee mun leen papa ji la jël seetaan leen ko rek munul téye dara ci loxo bi lu ne sama papa danaam xëy kër gi demaguñ marché mu mayee li mu yor ci ay dépasse kër jàmbur ba mu jeex tàkk ñun suñu dépasse waa kër da daan ñëw ci kër gi ay 14 heures 14 heures et demi la sama yaay daan dem marché ndax da ngay wax mu ne la maa ngi dem wuti ko mm-hmm. li nga yoroon léegi-léegi mu ne la joxe naa ko dem na billaay wallaay taalaay tey kon bu ñu amoon lu ñu gënal lii yëpp da koy fekkee mm-hmm. mais nag sant yàlla bu ma fàttalikoo sama premier combat may bëre boobu kër gi baraag la fenêtre am fii la féete woon mm-hmm. bi may bi ma ngeen booba génn sama néeg mu ngi tëdd munul jógal boobu ma ñëw nag paa doom ñaanal maa ngi def stade mu ne waa demal nga demal nga ñëw après nag ma ma wiiri di génn mu kërti kërti ba sama yaay ko loxo mu taxaw ci fenêtre bi nit ñi nekk fii di yuuxu mu def nii loxo bi ñëpp noog ak li mbooloo mi di bëri bëri mu ne xaw ma dama koy fekkee xaw ma duma ko fekkee mais ci àddunaam du ci sonn mm-hmm. lii la mujjee wax ak mbooloo mi fi dajoon ak li mbooloo mi di bëri bëri mun leen xaw ma dama koy fekkee xaw ma du ma ko fekkee mais ci àddunaam bu fekkee man maa ko jur du ci sonn. te sant naa yàlla bu baax a baax a baax a baax. li mu waxin maa ngi teg bët. ndax ak lu mën a xew ba mën a xew xaw ma ndax yemale samay bëgg-bëgg moo ma teree sonn xaw ma lan waaye dara feesul sama bët. ndax man pour man 5000 yi ma am rek fa laa war a mën a yem. sama bëgg-bëgg yemale wu ma ko si dara xoolu mën a jibi turee ngeeg 4-4 xoolu mën a kee ngeeg leen. parce que man damaa am gëm-gëmu sama put bii nii du dee fii ak li ci war a aw yëpp awu ci. li suñu borom programme ne def fiy jaar lépp a fiy jaar ma doog a dee. sama loxo bii li ci war a tege lépp dina tege ma doog a dee. kon li ci des amul solo. kon li ci des amul solo dama wax ni li mobile de dund ak famille Ablaye Mbaye borom barke bu ci nekk war na ci mën a tëg bëtam effectivement wax na dëgg la mu jox famille Ablaye mbay moo leen ko gën a soxla kër ga mu leen jox moom moo ko gën a soxla moom ak njabootam. waaye tey bu demee ba jëf ko bi wajji laayal karim dafa gis li ay waajuram dund ak moom ñu ñii xam ci dara it mu fekke ko baay mbaanoo nga jëng nekkoon jàmbaar yaayam tamit aussi nekk jeegu fakk tëdd daaw xam li ko neex daaw xam li ko naqari musta buuse musta fay musta tas toogaayam bu njëkk bi rek la toog tey ba ni njabootam màggee kon muy loo xamante ne que borom barke bu ci nekk war nga ko mën a jànge waaye di ko ñaanal jëf jooju mu def yàlla na ko ci yàlla barkeel ndax lu ko waaye di ñaanal rek barakat moo ci moo ci jiitu xale la effectivement ay débém fi la ma fekk kër bañ koy fay fukki junni mu war a bëreeg ma ab fi nga xamante ne que moo ci terrain yaakaar <laughs> sama kanam defe naa avance man maa ko joxoon mu nekkoon xale yi nga xam ne ñoom ak ñoom naan di faal ñoo débuté ndoo ñoom Pape Excellence ñoom la standard ñoom mobile 2 bi tey ñoom euh, ñoom l'enfant noir euh, xale yooyu nga xamante ne que même génération la ñu ak moom ak ñoom Zarko yàlla defal ko ci muy ndaanaan def carrière bu am solo waaye nee naa ko mobile li ma lay xam-xam xam-xam tu m'as surpris coup bi daf ma euh, surprendre ma ci jullu ji déedéet waaye dama jàpp ni que li Sénégalais yi jàpp mooy mbëri dañu bëggee waaye tey mbër mu social la ngi kon di loo xamante ne que na ci moromu mbër yëpp tey jàpp tey wala roy ci ngir mën a jàppale ñi nga xamante ne que ñoom ñoo ñu leen gën a jege mobile lay tàggoo. waaw li may tàggoo mooy di sant yàlla rek di julli ci yonent bi bu baax di sant suñu ñaari waajur di sant Serigne Touba Khadim Rasoul ah di ñaanal tamit suñu papa Iran Ndaw suñu borom bàyyi ko fi ba ci mm-hmm. kanam a kanam a kanam li ma doon wax ci moom rek mooy di wax naan kilifa yi nekk ci réew mi te mën a def te xamuñu fu ñuy jaar bay def xëy na bu ñuy suivre yenn yi rek mm-hmm. dañ koy seetaan bu baax a baax mm-hmm. ah di ñaanal yaay Ablaye mbay tamit suñu borom may ko xolu muñ bàyyi ko fi ba ci kanam a kanam a kanam a mm. ko njaboot gi tam fekkee seen njëriñ ñoom ñëpp di ñaanal sama yaay mu yàgg fi trop te ànd ak wér waaw mm-hmm. ah, di ñaanal Sénégal yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp di wax ne tamit comme ni ñu ko waxee woon defuñu ko woon pour wane njàmbaar defuñu ko woon parce que bu doon wane njàmbaar dañ koy def te tëj yeneen mm-hmm. dañ koy def te tëj yeneen mais la ñu joxe moo gën bii ñu dëkk mm-hmm. mais doon naa dégg it ci mag ñi ñu naan boo jógee pour def te yàlla tax xoolal la nga gën a bëgg nga def mm-hmm. kon looloo gën lii ñu jóg bu mu buuboon samay bagage waa kër ne leen kaa leen ñu dem ci bu baax ba jox ñii bii nii day mel ne li ngay def da nga cee mm-hmm. dama leen koy jox toog xaar yàlla te am naa gëm-gëmu ne lu ko rawit laay ami mm-hmm. waaw sant naa mu ngi noonu am naa gëm-gëm lu ko rawit mu nekkoon histoire boo xamante ni que fin na mbiru yaay Ablaye mbay di ci ndokkeel waa Dakaractu surtout ndax bi mu amee Youssou Dieng Fara Marone musique man la woo keroog na ma dugalal photo yi ma ne ko duñu ñu dugal photo yi wool maire bi ñu ñëw jël si ko entamé combat bi ma woo Medoune Diouf ndeysaan moom tamit improt woo Fadel Niang bu Dakar Buzz ñun ñëpp tak ku dem fekk meer du parcelle song ko waaye keroog bi maire bi jooyee la ma ko waxoon rek mooy maa ngi dogg ci mbaaku sëñ Mbàkke Madina ma am lu moom mooy mbir mi yàlla mayuñ ci ndam yàlla may nañ ci ndam kale baa ngi nii jëf na ko bi wajji lahil karim waaye mention spéciale à Iran Ndao jërëjëf Iran Ndao sa jëf ci réew mi rafet na Sénégal yëpp teg nañ seen bët ndax ku jël yitte doomu aadama ak seen i soxla def ko muy sa yitte ak sa soxla jàppal ne yàlla nga uutu ci jàmm yi damay faral di wax borom barke yi ne leen jaami yàlla yi njabootug yàlla lañu lu leen ci waay di defal danga uutu yàlla ci ñoom kon di nga fi yàgg di nga fi wér ndax nit ñee la naan yàlla nga fi yàgg yàlla nga wér ndax njabootuk sunu boroom lañu kon mbokk yi lii indi loon Grand Yoff fii Arafat seet suma rak suma xarit mobile 2 di leen jox dig daje ci yeneen ni jamono sur Dakaractu